dañuy dem si benn dernière question. booy tey suñu même lu ñu am dañ koy jox mu wax lu ko neex bàyyi ba dernière question Sénégal xam nga ne fu tool ni nii moom mu ngi préparé lii di coupe du monde. Mhm. ñu nekk Égypte. xam nga man dama ñëwoon toog ci seen site na leen Sénégal incha allah coupe bi fii lay ñëw. waaw moo tax ma delluwaat si yow laajaat la question bu ngeen demee bu ngeen waxtee xool li li nga xam ne def naa ko. Mhm. wax naa ko. ma leen Sénégal ñu ne naa ma leen ko bi fii la jëm ci kàttan suñu borom te gis nga ba ma koy wax boobu ñu ngi am ay ñu ngi am suñu suñu suñu yi presque neexul woon gars yi di critiquer ci critique ba falaa génn wax ne leen ko bi fii la jëm si keroog bi ngi def suñu final mm-hmm. damaa toog sama salle di seetaan gaa yi di ma woo mm-hmm. gars yi dem ba xaddi gars yi yëpp découragé mm-hmm. di ma woo soo naa woon nu muy demee ma ne ko son ngeen seen jokkin mbaa mbaa son ngeen seen jiin. naa daw jumelé. ñu ne ma waaw ma ne ko kon préparé leen. la lakkaayoo leen seen seen drapo Sénégal tey dañu am ndam na dañu jubilé. parce que salaatu ala nabi. billaahi man sax na ma fàl lii laa wax. billaahi mooy awaat bi gën a fort ci waat. Mm-hmm. gars yi di ma woo man ci sama wàllu jokkin laa sol keroog. Mm-hmm. ma ne leen billaahi ñu ne waa ma ne leen billaahi da ngeen di jubilé tey. te booba tiiroo bi lañu fe lañu lañu la ñu tombé. gaa yëpp tiit moo tax it vaar yi waaye macha allah. macha allah sant yàlla. waaw mais tamit question bi. keroog da mel keroog mel ne man maa doon joué ndax sama kër daa fees del gaa yëpp ñëw di sargal. Mhm. kon sant yàlla am na yoo xam bu loxo yàlla may da sant yàlla. sant mais question bi ma la posé nii posé naa ak ma xool ñeenti sëñ xaw ma ba kenn tontu ma si. muy si lan. Sénégal match aller bi football contre Égypte fële si Égypte ak retour bi football fii Sénégal. dañ koy daan dañ ko daanee woon maa ko wax man soxna Fall. xanaa goma sa bopp. ñaata la. bu mën a goma wax lan la ñaata la mais dañ koy daan nañ ko daanee woon. match aller retour de maa la wax lii dañ koy duma. xale fi ñu toll nii. Mhm. ak ni gaa yi nekkee benn nii ci Sénégal. barki Serigne Bamba fu ñu dem équipe bu ñu dem dañ koy duma mu toog. xaw ma nag dañu yëba ji ci coupe du monde coupe du monde bi. mais bii nii dama ne bii moom dañuy qualifié dañuy dem kenn duñu téye. loolu moom leer na.